aca sama gars yi top c'est parti demi-finale poids léger ndeysaan ah Brosse El Bandit ndeysaan Doudou Basse Doudou Basse Brosse El Bandit final bi narta yombu final bi narta yombu ndeysaan Doudou Basse El Brosse Bougul Diam mu bëri tànn Doudou Pass